saddi lisaani nawi janaani saafi amaani wasid baraayi bismillah barki borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision Majmahun Nurayni TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital nuyoo bi ci turu borom bi subhaanahu wa di ko ñaan mu musal ñu ci seytaane di ko wax alhamdulillahi lazi bi nehmatihi tati mu saalihaat di ko ñaan itam mu wasaare ñu ci leeru sallallahu alayhi wa di ziar suñu xalif général des Mourides di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ziar général des Baye Fall sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wer di ziar itam ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba fii si Thiès di Serigne Saliou Touré sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér waaye itam di nuyu ki nga xamante ni mooy joorinu mbooloo mi di ko ñaanal sa borom yokk kàttanam ba liggéey bi fu mu ko bëgg a àggal rek mu weesu loolu. boo leen gisee mbooloo mi sama ginnaaw ngeen war a xam ne ñu ngi ci wàccaay ziar bi nga xamante ni yàgg nañ ko amal ba suñuy jonni tey di ziar bu eh, Majmahun Nurayni daan def ci kanamu xalif général des Mourides. ba tax na li ëpp ci mbooloo mi jiitu nañu daal mën taxaw liggéey ba balaa boobu dañu daal di ànd ak yéen dégtal leen lu fi jota bàyyi ko laata ñuy jébbal suñu antenne soxna ay Ayfa ak équipe bu technique am. بما فاق ظني به بلا كلفة مني وقد زال مغنمي لئن خلني من خل روزا فاسدا بسم jërëjëf mbokk internet yi comme ni ko soxna Ndeye waxee mbooloo maa ngi nii di soog a agsi fii si Touba comme ni ngeen ko gisee ci image délégation yaa ngi noonu di dugg ci benn par benn ba ñi nga xamante ni ñooy yor wàllum organisation beeg hébergement bi di leen dalal fi nga xamante ni ci barab yi nga xamante ni foofee la ñuy dalloo fajar gi kon xam naa dañuy ànd ak yéen dégtal leen li nga xamante ni moo fi bawoo ci wàllum wàccaay ak njàngum xasida feeg fajar laataa ñu leen bàyyee ak suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo yor wàllum direct bi xadiimul